Cheikh Bara ñu ñëw nag ci li nga xam ne moom la ñuy wax wàllu kaso. Mhm. parce que kaso. Mhm. Euh, dafa nekk loo xam ne jaaxal na nit ñi tey mhm. euh, daal gaaw na lool surtout ci jamono ji léegi nag luy tee dem kaso. waaw ma njëkk a wax ne man moom am naa. Mm. ndomba. ndomba xam ne dama koy defar. ndomba xam waa njare la. day tax nit ki bu ko takkee bu tukkee dina ñëw. même bu doon def lu ñu tere. kaso moom caabi du ko fete ginnaaw. kenn du ko tëj waaw. boo ko takkee. Mhm. caabi du la féete ginnaaw. Hmm? waaw. ndomb goo xamante ni boo ko takkee. caabi du la féete caabi du la féete ndomb googu seer baara xanaa war naa ay seer ak yooyu garaawul waaye. Hmm. am na nga xam ne da ngay ci wàllu. kaso ak ak ak gis nga man. waaw. xaw ma moo ko mën a seetlu am na ministre bu Ablaye Wade boo xam ne. waaw naa ko defaral loolu man. ndomba ndomba ndomba. Hmm. bi ñuy mars. ñu ne ko ciixtee. dugal ko ci oto bi. <laughs> oto bi daa tàkk. oto bi daa tàkk waaw. oto bi dafa tàkk ba police yi daw mu ñu nekkoon ci oto ba tijji ñëpp daw rek mu jeex. wala yéen daal dem leen suñ baarab menn mbaam la moo xam ne dañ ko war a jàpp wala suñ baarab jaam la wala